félicitations directeur Aladia Assane Gueye déglu vraiment wax sa xalaat journal bi nga présenté tout le temps sur la RFM la meilleure des fréquences Assane ma en tant que directeur euh, de la RFM te comme wax sa xalaat moom am Je ñuy ci téléphone mais il tamit ñu a def seen vidéo mais man damay gis ni argumenté bokkul ak comme ni nga doon argumenter ci gene ci euh, jamono Macky Sall parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gëna am audace wax yene deug yi que gouvernement Macky Sall moy deug gëna waron wax gouvernement Macky Sall ñu len ko mais instant yi avec euh, ce nouveau régime bi nga xamanteni xewna euh amna lo xamantene ne am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que lolu <laughs> départ gaynde arrivé muus parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn te lepp lu ni casse ci bir Sénégal amna lo xamantene que yeen xam nga situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy walé économie muy wàllu euh, infrastructure c'est-à-dire euh, muy euh, c'est-à-dire Sénégal fait pas metti te te te le ko waral du nouveau régime bi motax tax koy wax de non non non dafa am lutax tax koy wax kon donc moi je vu que moi je vois que Assane euh amna lo xamanteni ni il faut nous bàyyi ci xel régime bi soog ñew ñëw xey régler lépp de A à Z ndax li fi ne ak li fi bàyyi ak li nga xamanteni état bi liggéeyoon na ko avant ak li ci ay tooxi na am fi te waxuñu ko won nu bàyyi ba diko di wax attention. <laughs> dañuy tëb rek pour forcer état bi pour nu koy lijjanti loolu ni nga koy lijjanti sax ndax boo xoolee ci benn weer ak ci ñaari weer mi ngi def jaloore yu am solo nag yoo xamante ni que kenn euh, mën nañ wax ne xam nga bu yàgg gars yi dañ naan def sax nu xëy population bi ñëpp di ko wax mais gars yi dañuy liggéey en sourdine c'est-à-dire mooy dañuy xëy di lijjanti lu bëri ci réew mi loo xamante ni que sax xaluma kenn ko waxtaane fekk gars yi ñu koy faj.

sax eh, ñetti wër wala ñenti wër nu bëgg ko yenn loo xamante ni mat na douze ans yaakaar naa loolu lu naan <laughs> eh, loolu moom eh, lu rëy lay mën a doon quoi loolu mënta ne donc euh, ce qui est important euh, nu jox temps tuuti gars nu xool après qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas sama directeur maa ngi koy féliciter sama impression laa doon wax ci vidéo bi sànni ko parce que euh, wax sa xalaat la. ñun ñëpp ci réew mi neen nekk dañuy wax a xalaat jomaay mooy sonko sonkoy jomaay